waaye maa ngi lay fay. tey noo bëree. waaw tey conseil rek la ñu bëre conseil rek la ñu bëre sant yàlla tamit les conseils xam nga rek joxe nañu résultat. kon li ñu def lu sant yàlla quoi. di gërëm ñëpp di sant ñëpp parce que combat bi ñëpp si jàpp. ñëwal bëri bi. dañoo bëree conseil dañoo jàppante muy def ndoxtu bëri ma seetaan ko rek. xam naa ne yàgg yàgg su ko pompé de sonn. mais damaa yàgg nga indi xeex samp xeex luñ la digal la woon. dóor la bëri dóor la ñun mu ngi see bunt dañuy xeex bu ñu gisee bunt dañuy bëri barke alxuraan tey Brigue lan moo nekk ci kanam. waaw mais ñu ngi xaaral gars am na ñoo xam ne tey war ñoo sañ naa. xaar ñëpp ku ñu la am boole rek bëri nañ suba suba suñu ñu jox tey avance ma jël barke Sëñ Tuubaa. avance kan. avance ku mu doon barke Sëñ Tuubaa jox ma benn. non dama la du ma la jox tout on se donne rendez-vous encore incha allah. ñàkk kan kuy kooku waaw mais waaw wuy boy yi eh. ñëwal ñu bëre amul lan la man lu ñu mënul lan la man lu ñu mënut wala lu mu def lu ñu defut. waaw mbër daa saf saf. waaw ñun ñoo gën a saf ñun dañuy. gis nga ni mu def li kaani def lépp waaw ah, na barki suñu toog lii liis du si man na ñëw ñu bëre na ñëw ñu bëre su ma xeexee gaa yi signé su ma bëree gaa yi signé barki suñu Tuubaa barki Alxuraan mais nañ dem ba si kanam rek.